mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak solution TV ak solution info TV di gërëm ñëpp di leen sant di nuyu Abdou Top Ablaye euh, Fallou Sanjogu Soye bu Aïcha Assane ah Ousmane ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di ñoom Soka ak ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal tey ñu fa yéene waxtaanee li jëm ci grève de la fin bi yenn ci détenu politique di def ku ci mel ne Ousmane Sonko kii di euh, Cheikh Bara Ndiaye ak ñeneen ba ci ñoom Hannibal ak ñooñu ñoom ñëpp nekk ci grève de la faim grève de la faim boobu bari na ci ñi taxaw ci réew mi naan nanu ko bàyyi nanu ko bàyyi mais nit bu dee def grève de la faim am na fi muy egg moom du amati pexe grève de la faim moom fu fa nit eggee rek ñàkk pexe la ndaxte bari na ci ñun ñii sunu réew yi xam ne ñiy dugg prison ñu bari da leen yóbbu pavillon spécial mooy wane ni ñii di dem prison bari na ci ñoo xam ne dañoo xiibon ñi wéruñu seen yaram dafa sutante parce que ñun fii koo fi gis rek mu ngi sooxaale léegi nag condition de détention yi ñuy nekkee ci biir prison yi yenn saa yi mun na yokk ak wopp ci tàngoor ci xataay mais aussi ci ñàkk liberté rek tëju ak lekk ga nga fay lekk ak yépp loolu nag képp ku ci ne tamul leer na ni defoo sa aqulaay taala parce que nit ki conscience am rek mooy tribunalam mën na la attee fu ne ci àddina mais sa conscience mooy sa tribunal parce que li la ne yaa ko def yow képp yaa mën a waat ci àddina ni yaa ko def wala defoo ko ñi lay tumaal yëpp ay njort lañ ci am wala ñu jublu ci leneen wala boog ñu dem ba tribunal ate ñaata yoon la fi tribunal atte ate boobu ñu dem ba jëmi jamono ñu ne atte boobu nañ ko jubbantiwaat loolu lu mën a ne la kon tey jii kii di Ousmane Sonko ak Cheikh Bara Ndiaye keneen ñi nekk ci kaso bi grève de la faim bi nanu ko bàyyi la ñu bari wax ñu bari bind nañ ci te taxawaay boobu ñu ci am lan war a am mooy nan ko bàyyi Cheikh Baram Ndiaye mi ma gën a miin ci photo yii grève de la faim am dooru ko bi ñoom Ousmane bi door Cheikh Baram mi ngi ko door na ko lu yàgg mais daka daan bàyyi di ko bàyyi parce que dañ ko daan ñaan muy bàyyi Cheikh baara du rek tey jii téye guñ ko téye moo waral grève de la faim mais tey jii condition ya mu nekkee ndaxte yaram moom dafa sutante lool lañ wax te looloo am parce que bu amul woon kenn du ko yóbbu pavillon spécial bu Dantec ndaxte bi ko juge bi njëkkee déglu moom la juge Mamadou sekk dafa jël Cheikh Bara yóbbu pavillon spécial ku xam Cheikh baara ci wàllu wér-gu-yaram da xam ne demul woon noonu comme ñun ñu bari ci ñun danga koy sooxaale mais daa am luy yee sa jàngoro mooy nga nekk ci fitna wala nga nekk ci jafe-jafe wala nga nekk ci lu ne Cheikh man seeti naa ko fekk muy sox tànkam bi mu ko laajee mu ne peut-être euh, di fàttali ni bi nekkee garde à njëkkoon nañ fa tudd malaise bu mu am loolu ñu bari na nga koy fàtte bi mu nekkee garde bi vue wax tànkam mais na noonu du dara rek wax noonu quoi xam ne kilifa moom kilifa la kenn du wax léppam mais ginnaaw gi tane na ba jëlaat tànk bi di ko tegaat ci suuf mais bis yi nga koy njëkk a seeti ci pavillon spécial da doon sox tànkam kon Cheikh Bara mën nañ wax ni durant li mu tëdd ci pavillon spécial tëddaale ko ak weer kon loolu mu doon loo xam ne lu ñuy seede la bi mu demee ba war a def grève de la faim dama leen di jox explication yi tax nit ñi di def grève de la faim pour ñu war leen comprendre daf ma woo ñu toog mu ni ma Omar la mu ni ma dama bëgg a def grève de la faim noo ko gisee ma ne ko Cheikh Bara man ànduma ci mënuma lu tax moo xos samay raison na ko ànduma ji parce que nguur gi xam ne 6 mois moo leen fi dese jaruñu dee moo xoloolu te yow sa yaram neexul boo ci tegee di xiifal lekkoon li lim la mën a yóbbee bari na man ma Omar Gueye li nga wax yëpp dëgg la mais dama amatul pexe ma ne ko lu tax amatoo pexe mu ni ma un mois lan ma téye juge bi déglu ma delloo ma samay portable bëgg ma na ma demal ñibbi may ma liberté provisoire ak contrôle judiciaire nee na ma nangu ko nee na procureur jóge fee def appel ñun ko may na la ci juróomi fan yi ngir nga mën a def appel ñu xëy rek mu def appel moom procureur appel boobu mu def nag moo jaaxal Cheikh baara naam am na beneen tribunal bi ñuy xaar ngir mu àtte ko ngir ñu xool nax danga koy bàyyi am déet mu ne ma Omar depuis quelque combien de temps la Pape Mamadou Seck nekk ci kaso bi ma nu ko ëpp na at mun a ami ja limal ma ay tur di ma limal di ma limal ci ay nit ñu nekk ci kaso bi ay Diomaye Faye ak Fadilou Keïta mu ne Omar man lu ma dul nangu mooy bis bu ma toggee ci kaso bi na patt toog di lekk di naan tey toppewul ma dara parce que ne juge bi delloo na ma samay portable nee na ma li mu doon toppee lii mu nga dem liberté provisoire nee na téye bi ñu téye Amy Dia téye bi ñu du Mamadou Pape Mamadou ak keneen du ma nangu ñu ma koy téye. parce que nag kilifa gu doy na man téema ci kaso bi rek en notage yi noonu du ma ko nangu te nag man ànduma ci grève de la faim parce que bokk naa ci ñi ci àndul wax naa sax ak soxnaam mais bi ma waxee loolu ma ni teg naka ah motion de grève mu ne mais pexe amul parce que li ma wax aussi xel nangu na ko mooy nee na gars yi dañ lay denc rek du la lét du la firi du la atte du la def dara ñu ne mille cinquante détenus politiques ñu ngi ci kaso bi amul kenn kuñ ci taxawal tribunal atte la ci li ma yëg <laughs> mais y a problème am na ñoo xam ne li leen toppee ay délit mineur la wala ay délit d'opinion ñu ibbi instruction information judiciaire tee leen ci kaso bi du guddal mbayum noor mais bàyyi boobu ñi leen di bàyyi ci kaso bi ñu fay bëgg a yàgg mais loolu dina tax képp kun jàppati nga jàpp ni da ngay tiit mais bu doon ni li daan xew ci nguuru Abdoulaye Wade am ci nguru Abdou Diouf moo am mooy loo mën a def dina la woo foofu sax garde à la la doon def mais procureur sax daaw ci am yoon police ngay dem après deux jours trois jours wala ci bis ñu bàyyi nga dem mais nguuru Macky Sall li xewal mais loolu jar na grève de la faim justice bi li mu xewal mais jar na grève de la faim mooy da lay jël yan la bàkkaar bu dul jeex. yan la lu ne ci àddina na la demal toog xaar ngay xaar du la let du la firi du la atte wala kaaw pa Abdoulaye Touré damm ba mënatul dox ñu continuer di ko téye mais loolu dina tax képp koo xam ne yaa ngi ci loxo yoon boo amee yeneen moyen pour génn di ko def loolu nag moo expliqué tey ji grève de la faim bu seex Bara mais bu Sonko parce que nag liñ nangu mooy ñu tuumaal leen yan leen lu ne jël leen di denc leen fa kon il faut que ñu nangul leen li ñuy def même boo ci àndul mais ñiy wax ak nguur gi ak di wax ak Cheikh Barak di wax ak ñoom détenu politique yi mais di wax ñoom Ousmane Sonko mais ñoom ngeen wax ak nguur gi ne leen depuis 17 jours Ousmane Sonko Cheikh Barak Hannibal Djim ak keneen mais ñi ngi ci prison. nekk ca pavillon spécial dem ban ne egg na ci réanimation dem ba ne egg na ci réanimation mais foofu nguur gi moo waroon desserrer le taux woyofal loxoom tuuti na ah ñi kat na leen bàyyi ñu dem faju ji koroog maa ngi koy wax ci tàkku show mooy que ça tax na ñu bàyyi nit kaw bu gazeli duñ ci dellu siwaat mais kaw Cheikh Yérim sekk tamit duñ ci dellu siwaat pourtant bàyyi na leen ñu dem ba leen bàyyi ak tey ji waatu leen mais pour pourquoi ku mel ne Cheikh Bara ku mel ne Ousmane Sonko ñu war leen a téye bu dee ay fayantoo la nan ñu ko wax ñu xam ne lii léegi fayantoo la lii defante la mais kilifa warul defante kilifa warul defante kilifa bu bu uh, yilifee njabootam da leen war a yërëm yërmande gi mooy maa jaboote ñëpp je suis le président de la république de tous les sénégalais mais bu boobaa. nit ñi dinañ comprendre jaboote nga parce que sa biir njaboot nag di nga ci am ku ne même doom yi nga jur di nga ci am imaam di nga ci am jàngkat di nga ci am ab saay-saay di nga ci am ku ne mais njaboot googu yëpp yàlla leen jur te yaa leen yërëma est-ce que day tax bu añ jotee nga ni diw demal toog fee doo añ wala doo lekk doo naan li naan xale yi ku leen juróon yërëm leen mais président yooyu yaay le père de la nation ñu nangul la ko le chef de l'État de tous les Sénégalais ba 2024 kooku nag li sëriñ fàllu doon wax day dellu si mooy nit bu la yilifee te mu ñu la muñal say bang-bang matu la kilifa mais yàlla mi ñu sàkk sax dañuy juum mi ñuy baal dañuy juum mi ñuy tegaat ci yoon mais am na foo xam ne du fa egg ak ñun ba charia bi naan ku rey ñu rey la ku def li ñu li mais charia tëbul rek rey tëbul rek lii mais dafa am ay procédures yu ñuy jaar mais fi Ousmane Sonko tëdd tey jii Cheikh Bara Ndiaye tëdd fa. Hannibal tëdd fa keneen ak keneen tëdd fa mais dem bay egg ci réanimation nguur gi warul seetaan loolu kon ñiy wax ak Cheikh baara di wax ak kii di Ousmane Sonko di wax ak keneen mais nan wax ak nguur gi mooy ñi ci kaso bi mooy ñi deful dara ñu génne leen bàyyi leen ñu dem parce que boo demee dans les régions régions yi Sénégal fii ba ci Ziguinchor gi am na ñun fa jàppoon bàyyi na leen pourquoi à Dakar duñ bàyyi kenn loolu mooy problème bi la mu wutale juge yooyu ak juge lan moo wutale procureur yi ak procureur bi mais benn Ousmane Sonko nga bàyyi ko mu dem këram dem faju ji heure boo ko soxlaa woo ko mais ban problème la pour sénégalais yi mais nit ku dem ba egg ci réanimation kooku mi ngi en danger te am na foo xam ne bëgguñu mu egg fa am na foo xam ne bëgguñu Cheikh Bara egg fa wala keneen mais bu dee danoo dem ba ne ñii leen jege sax mënuñu leen a gis seeni sëriñ sax bu leen seeti pour teg leen bët day jafe. ku ci mel ne Cheikh Bara Ndiaye mais loolu day indi ay suspicion mais loolu day indi ay tey xel mais loolu day indi ay rumeur Cheikh Bara Ndiaye c'est pas un homme violent ñun ñu ko xam mooy Cheikh Bara garde corps sax amu ko xanaa chauffeur bi muy àndal te yenn saa mu dawlal boppam Cheikh Bara mosoo dugg ci otom ba fekk fa ngànnaay yat sax doo ko fekk yat di nga jamono jën fii euh, euh, attaqué Dame am na sax ñu naan ko utal kaaraange utal li mais utu ko bokk naa ci ñi ñi ni ko bu ko ut nag te bis mën na ñëw ñu arrêté sa oto fekk si ngandaay jiñ la ko bul ma soor ngandaay Cheikh Bara manifestation bu ñu autorisé wul Cheikh Bara Ndiaye mosu cee dem révélation yi wax na ma ko mooy Omar man manifestation mën naa fa dem mais bu autorisé wul duma fa dem ndax kilifa laa mais Cheikh Bara dialogue national bii ñuy wax. te ñëpp bëggoon Sonko teew ci ndaxte Macky Sall ñi teew yëpp Sonko teewoon ko moo gën a lan loolu laa jàpp parce que bi mu wooyee wootee ci Covid bi Sonko dafa dem kon mu woon ko ci dialogue mu dem mais Cheikh fii la toog di ci wax di ci def te pour man Cheikh Bara rek ku mel na moom waroon nañ ko mën a utiliser sax pour jàmmi réew mi maanaam pour jàmmi réew mi muy dox ci diggante yi billaahi mën na ko mën na ko ndax na nag ñu jàpp ni Cheikh baara noonu waa APR la wala xamu ci kenn wala gi xamuñu li xew li may wax ni am ñoo xam ne du ko weddi Aliou Guèye di ko weddi Amadou Ba du ko weddi keneen kenn du ko weddi Cheikh Bara même bu dul chroniqueur wala ki wax ci média mais Cheikh Bara mais observateur la mais médiateur la réew mi mun na fi dox loo xam ne bari na ci ay kilifa yi nekk fi mënuñu ko dox ndaxte c'est un homme consensuel dina wax ngëm-ngëmam ak xalaatam ak li mu gis. mais Sonko àndul woon ci dem procès mais Cheikh Bara da cee wax ba géex ba ñu bari jàppoon ni da am lu xew mais di Cheikh Bara mii ñuy wax naan Cheikh Bara Ndiaye mais Cheikh Bara kii di Ousmane Sonko bi nee du dem dialogue mais fi la taxaw di défendre dialogue ci jamono boobu lan taal otoom sax yóbbu ko kii di Aly Ngouille Ndiaye wala Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior Fall laay wax ak kii di Antoine Diome bi seen waajur yu góor faatoo mais Cheikh Bara Ndiaye da leen jaale fii la toog ci émission takku Show Sanjogu fajum cosaan ne maa ngi jaale Baye Antoine di jaale kii di Ismaïla Madior Fall def ko ñaanal leen kon kooku jàppul ci xolam dara contre kenn looloo tax fi mu egg di ñu naqadi ndax waruñu fa egg ak moom parce que le juge Mamadou sekk mais je pense que il est juste il àndul ak Cheikh baara mais bu mënee def enquête un mois delloo ko portable am bàyyi ko ne ko demal mais foofu leneen xaju foo woon kon li ñuy ñaan mooy na justice def liggéeyam mais contrôle judiciaire dafa bokk ci li justice di doxee liberté provisoire liberté conditionnelle nit bàyyi nañ ko sax pour des raisons de santé mais loolu war ci Cheikh Bara moo war ci Sonko moo war ci Hannibal moo war ci Pape Abdoulaye Touré. mais boo gisee tey grève de la faim yi takarnaase mooy charge yi ñuy teg sa kaw day diis gann ba nga jàpp ne lii bu la ko àttee mais mbir am léegi nag bu xasee ba am am na mais solution moo ci des solution yi mooy lan mooy réew mi dafa mel ne amawul kil amatul kilifa gi wax déet way parce que la solution politique dialogue bi c'était une solution politique man loolu laa gëmoon parce que boo amee plus de cent personnes ci kaso bi ci benn parti mais du justice mooy xëy di leen libérer mais solution politique dafa am loolu dañu ne problème politique mais solution politique lañ koy régler man boo gisee ma xawoon gëm dialogue loolu la mais ana ñu doon wax naan Ousmane Sonko bu mu dem dialogue bokk na ci ñi nekk ci Yewwi Askan Wi ak keneen ak keneen tey jii Ousmane sonk mi ngi ci kaso. lu mu ko mënal lan lañ ko mënal ñi ko doon wax bul dem dialogue bul dem procès lu mu ko mënal mais y problème koo xam ne yow bu nu barricadé sa bu nu barricadé sa permanence yow mënoo fa dugg ah mu mu maanaam yow sa permanence mooy sa kër mënoo fa dugg te boo fa duggee munoo génn. def nañ ko siège su pure def ko siège su perpe El Hadj Malick mais ñoo ñooñu mënuñu dara ci seen parti yi mënuñu dara ci seen permanence lan la ñuy mën ci Sonko kon Sonko bu ko ñoo ñooñu gëmal ni mën na la génne da koy nax njàmbaar gi ci Guy Marius Sagna nekkul ci geneen ñi moo wax la loolu kon bu waree am une solution politique pour ko Ousmane Sonko war a génn wala keneen ak keneen wala génn mais da nga ko war a def. parce que bu doon xeex moo koy génnee ban ko barricadé mais ñu dem daaju barrière mais toog ci plateau yi di wax rek dafa yomb dafa yomb dafa yomb tey jii Ousmane Sonko mi ngi ci bu mara de taali bu fi jóge woon kan mooy ñàkk njabootam kon politique ñaar la da ngay utiliser rapport de force pour am li nga bëgg mais beneen bi topp bu waxtaan waree am tamit na waxtaan nga am li nga bëgg parce que lu mattante dul may raay moo koy maye mus naa fi di def chronique fii wax ci dialogue mais nit ñi du la comprendre korog benn waaye daf ma jox loxo na ma tu as raison ma ni ko non benn jamono man lii laa doon daw Ousmane Sonko dem prison man dama doon maytu loolu te loolu daa am lu ko doon maye ci politique comme gars yi day jouer da ngay jouer seen jeu mais ana yoon Ousmane Sonko na dëgëral pro bu mu dem pour bu mu lii ana ñooñu barricade nañ ko këram tijjiwuñ barricade bi ñu ngi nii di tëj ay permanence mënuñu ci dara te tey jii même bu waroon doon candidat mais une solution politique mooy am kon des fois dama xol baax na mais di demee xel bi may mujj avant Ousmane sonk di dugg kaso maa ngi koy wax nanu dimbali Ousmane sonk baat boobu bi mu ko wax na nga ko dimbali ñi ko wër na nga ko dimbali mais li laa ko doon bañal pour man Macky Sall ak Ousmane Sonko ñoo yem ñi leen wër dimbaliwul leen nit ki boo ko bëggee ngay wax dëgg tey jii réew mi fi mu toll mais Macky Sall dafa soxla ko wax dëgg de même Sonko aussi mais est-ce que c'est pas trop tard. léegi bu solution politique amul Sénégal am na yoon yu ñu doon jaar mais di wax ak kilifa yi di wax ak kilifa yi mooy yoon yooyu mooy lan mooy kilifa diine yi mais tey jii kilifa diine yi wax yëpp ñu ne koo waxal ñun la ñu ngi wax ci suuf mais sëriñ Abdul Aziz Sy Dabakh ci kaw la doon wax sëñ Moustapha mii Moustarchidine war Moustarchidaat lu muy wax ci kaw la koy wax nga bëgg ko nga bañ ko mais pourquoi ñu ne ñi ngi wax ci suuf rek. sab taalibe nekk ci kaso bi ñu ne mi ngi xiifal ay kii mais Karim Wade Abdou Abdoulaye Wade bi mu tollee ci jamono yi xiifal ci wàllu politique Serigne Saliou da ko yónnee ndaw dafa ko ci suuf da ko def ñëpp yëg solution am ma loolu la mbiri ñoom Cheikh Bara ak mbiri ñoom Ousmane ko mais dafa war a am solution boo xam ne wax ci kaw comme yaa ngi wax ci suuf kenn dégloo waxal ci kaw que Ousmane Sonko ak Cheikh Bara li nekkee mari de taali yàlla bu mu am mais lu ne xaj na ci bu boobaa fu jëm bu boobaa fan lañ koy waxee kon balaa ñu cee egg na kilifa yi jug Karim Wade bi muy jóge fii di dem Qatar mais ay boobu seen Sidi Moxtaar moo fi nekkoon dafa yónnee ndaw di ci taxaw di ci dox di ci wax doon woon lu ñu nëbb de doon woon lu ñu nëbb Karim Wade dafa amoon taxawaay bu toll noonu taxawu taxawu dafa amoon taxawu mais tey jii taxawu boobu Cheikh Bara war na ko am mais Ousmane Sonko war na ko am pour que ñu mën a régler seen problème balaa muy egg fu ko kenn xaarul mais fii la Macky sàll mais dem Tiwaawan bi Serigne Cheikh Gaañoo bu ma juumul seriñ Abdoul Aziz Al Amin wax ak moom na ko bàyyil diw xaw ma Karim wala xaw ma xalifa na ko bàyyi leen. publiquement na ko bu ñuy wax dee dëgg am na sax nu mu ko waxee bëgguma ci jaaraat mais président Macky Sall kenn du wax ak moom ke xawma ma lan moo xew mais jot na ñu wax ak ñoom parce que les détenus politiques bii ma gis mbir mi wax a koy dindi pour ñu bàyyi leen ñu dem féex dem faju ji réew mi dellu siwaat ci jàmm parce que nag bu dee ni Khalifa Sall ak Karim Wade ñoo mën a ci ñoom laay daanale Ablaye mooy Khalifa Sall ak Karim Wade bu mënee dellu si ci géew politique bi ba mën a ne danuy bokkaat atum 2024 bay wër média yi di telli telli ak li leen fi jiñ yëpp ak lu leen fi tuddal yëpp ci réew mi nga xam ne kon une solution politique am na du mbir mi du yoonu koy lijjanti. mais aussi yeneen pexe tamit mën na ko lijjanti mooy diine ji parce que kii ñu jiñ ko ay milliards tey ji mu mën a dellu soit ñu ne ci dialogue jaar ci suba maa ngi déglu benn responsable affaire mu naan non li warul nekk une jurisprudence li am ci xalifa ak Karim léegi nan ko fa yemale mais waruñu permettre ti benn kilifa boo xam da nga amante yoon ci wàllu politique ëllëg ñi jaare ci yoon wala ñuy jaare assemblée wala ci wàllu politique di la jéggal maanaam li am ci Khalifa Karim rek nañ ko fa yamale man ko yaa dof parce que boo boo boo nite woon di nga xam ne adduna dee soppeeku yow politique nitu politique APR boobu di wax ëllëg mun nga retrouver wu ci situation boo xam ne Karim da ci nekkoon xalifa da ci nekk Sonko nekk ci surtout nguur goo xam ne nag 6 mois moo ci des alors que après 6 mois yi lu ne mën na xew te bari na ci ñoom ñoo xam ne am nañ ay dossiers yoo xam ne ma ngay nalaw beneen président mun na ñëw yëkkati ko gàtt xel. mooy tax ngay toog di wax yenn wax yi du ma sax tudd turam di ko may bës parce que ci ñi candidat benn bokk yaakaar la bokk mais boo ci waxee day mel ne da nga koy campagne mais moom muy xalaat boppam rek mais xalaatu ni ëllëg mën nañ ko topp ci yoon ba mu nekk ci situation Karim Wade sonk wala Khalifa léegi nag li jëm ci sonk ak Khalifa li na leen ban dañuy bokk waaye balaa nga naan naam da nga fay ne ñoom dafa am benn piège bu leen président Macky Sall tendre te boo deful nànk dañu ci daanu te mooy dina nekk candidat mais boo déggee seeni nit li naan noon bu nite moo gën soppe bu dof da ngay dégg waa PDS ak waa xalifa yi ñoom waxatul dara président Macky Sall lu dul toog di tagg président Macky Sall di ko tagg lépp lu ñu yëkkat ci lu bon rek dóor ci kaw usmaan Sonko wala ñu dóor ko ci opposition bu Sénégal gaar waale Ousmane Sonko lu ne ñu dugg ci te wala fi dañuy faral di wax naan ku nekk ci ndox waroo reetaan ki lab mais ñoom danoo jàpp ni egg li liñ doon ut am nañ ko mais ñoom tey ji danoo am intérêt pour jubo ak waa Pastef ndaxte fii Pastef bu dul ruwaa tamit ñooy faiseur de roi maanaam képp kuy falu fii ci réew mi neexalal waa passé fii ëllëg bu ñu amul candidat wala ñu amuñu plan B wala lenn ñu mën a jël seeni i voix tasaare ko te Ousmane Sonko mi ngi ci kaso mais deewul mais Ousmane Sonko bu ñu demee ba egg ci élection am na ñoo xam ne dinañ ko seeti kaso bu dee ni génn génnul yàlla na génn balaa boobu mais bu doon ni génnul mais wala même bu nekkee këram dina am ñu ko fa fekk na ko mais Ousmane waxal ak sa parce que politique ay manœuvre la gis nañ Ousmane Sonko Ousmane Sonko en 2019 mu seet fi Abdoulaye Wade ku la waxoon ne Ousmane Sonko Abdoulaye Wade dinañ daje en 2019 doo ko gëm kon tey ji Karim mi Khalifa mi mais dañuy soxla Ousmane Sonko kon seen nit yi xas Ousmane Sonko lu ne ñu ko ko te gënuñu ko ndax Ousmane Sonko sàccul alalu réew mi Ousmane Sonko fenu fi Ousmane gàddaayu fi daw Ousmane Sonko génnul kaso na pat. problème sénégalais waxatu fi ba waree bañ la bañ ba lu ko ji fekk fekku ci avec bokk d'honneur nag ak di dignité mais da ngay gis ay nit yu bokk PDS wala ñu bokk xalifa wala ñu bokk xalifa mais di yàq yenn yu Ousmane Sonko mais c'est pas intelligent yenn ëllëg da ngeen di soxla Sonko ëllëg da ngeen bëgg a falu soxla ay militants Sonko mais même boo leen xamalee Sonko naka su dul noonu mais waroo leen nekk ci groupe WhatsApp yi di ko wax. daa am ay message yu ma jog jot yu jóge ci groupe WhatsApp mais du du noonu parce que ñi ngeen di xas ak la xaxar tey bu ñu demee ba le 24 wala le 25 février da nga leen di soxla kon da ngeen di sóor lu ñëwagul kon Khalifa ak kii di Karim nanu waxaat ak seen nit ñi bokk PDS ñu bañ a ñaaw ci xare bi te xam ne liñ bëgg ëllëg buñ ko waree am faw ñu waxtaan ak ay nitu Ousmane Sonko. mais tey ji Macky Sall li mu réussir xam mooy lan non Macky Macky ay Macky dafa xam ne mënul jariñoo électorat wu Sonko ndaxte ñaaw na ba nopp te day gën a ñaaw mais ci tëralin wi moom bu mënul jariñoo électorat wu Ousmane Sonko day fexe ba xalifa walla Karim duñ ko jariñoo bu boobaa candidat wu Benno Bokk Yaakaar bu dee ni ñi di waa Karim yi waa Sonko yi danoo téye seen loxo ci élection na woteeluñu Khalifa woteeluñu Karim woteeluñu Idrissa Seck léegi seen i carte buñ ko téye joxewuñ ko mais day arrangé Macky mooy waa Sonko yi buñ woteewul gedd day arrangé Sonko day arrangé Macky mais aussi buñ woteelee keneen ku dul ñii day arrangé Macky parce que Macky danaan du ma jariñoo Sonko waaye keneen du ko jariñoo loolu tax mu ràccal leen di leen xalamal tëral leen seen gàngu naay ñu nekk ci assemblée national foog ñu ñoo rey gaynde gi maanaam mën a dem la Senghor doon wax bëgg a dem taxut a dem mën a dem mooy tax a dem ñoom ñii bëgg nañu dem ak nun demee baax na nan bokk rek waaye buñ bokkee bokk boobu danoo soxla ay électeurs danoo soxla ñu leen woteel danoo soxla ñu leen gunge parce que boo xoolee électorat wu Khalifa bu génnee dakaar est-ce que am na feneen leneen mais bu dee Karim électorat wu parti démocratique sénégalais je parle du PDS je ne parle pas de wàllu je ne parle pas de coalition mais je parle du PDS mais PDS mais dañuy naaw seen donc di ruus doole ji moom amoon amatu ko parce que ñu bëri gàddaay nan dem fekki mouvance présidentielle bi kon waa PDS yooyu war nañu xoolaat lan mooy seen pexe ci politique parce que ay nit loon yu ñaw ci politique yu ko mënta xam ko mais ñiy waxal Karim Wade man dégguma Karim ah mais ñiy waxal Karim Wade mais waruñu di dóor ci nitu Ousmane Sonko yi te gis naa ñenn ci ñoom di ko def ndax ne nag man dama bëri ay nit PDS yoo xam ne dama leen a xam yu am gëm-gëm am conviction mais jamono yi seen sago dafa xaw wàññeeku sago depuis ñu ne Sonko bokkul Karim day ñëw pour ñoom ñoo rey gaynde gi alors que balaa nga naan naam danga koy fay ne te bëre mbër bëre mbër te boo bëggee jooy dangay ngay tooñ ku la mën Pastef mën nga tas parti bi tëj son ko mais esprit Pastef ak ngëm-ngëm boobu tasagul te pour nit jot ci li ñu yor da ngay naxanteeg ñoom ba am li nga bëgg mais nitu xalifa yi boo xoolee Abba mbay depuis quelque temps je ne le reconnais plus nga xool xa euh, Barthélemy nga xool gars yi Karim yi waa PDS boo leen di dégg. ñu mel ne ay géwélu président Macky Sall ah li naan utkat amul jikko waaye tey ji jàpp na ni li ñuy ut jot nañ ko te jegeegun ko élection présidentielle yi di ñëw képp ku mën a waat ni di moo koy gañe xamoo politique élection boo xam ne pour la première fois le président sortant ne awma candidat tey ji géew bu ñu war ko sorxo sorxo ki koy gañe mun na bañ a doon sax ku ñu xamul kon ablaay mi ngi noonu di la gërëm bu baax di la sant di gërëm topp euh, di gërëm fallu El Hadj du Diouf di ñaanal ñëpp jàmm di jégalu ñëpp nag di ñaanal rek Cheikh Bara Ndiaye mu génn gaaw waaye te génn ak sagoom génn tamit ci wér-gu-yaram màggali ci jàmm ñun ba tey jii am nañ yaakaar ni Cheikh Bara dina génn te dina wér ndaxte Cheikh Bara lebal na nit ñi loo xam ne gëm naa ni suñu borom dina ko sutural te dina ko may jàmm ak salaam di ziar njabootam yëpp di masaw kati bu baax a baax soxnaam ka kat yi Cheikh Bara nga ñëw kon Omar bun Xattaab Gueye moo doon àddu ngeen di teewlu di ñaanal ñëpp jàmm beneen yoon incha allah.